moom la fa fi mbakk yu jaar la ñëpp jaar moom taalibe sëriñ Tuubaa sëriñ Tuubaa ko jox li mu yor waaye génne na Ndakaaru ak la ko wër ñu jàng kaamil yi ñaanal sëriñ Aatu mu yebal tey délégation bii boole leen nuyu na ñëw yëkkati njaanum jëwriñ mbakk waaye dund liggéeyal Serigne Touba faatu dagg yi ñu nga bàyyoon ba kenn ku ne liggéeyal Serigne Touba dal na àgg ndax bi fi nekkee liggéeyal na Serigne Touba mu demee ko am ku ne tegaat ak ca bët kon daggiwaat na mujj léegi mi ci xol yi ndax ku ne yaa ngi liggéey pour am bis boobu kon moom fi nekkee liggéeyal na Serigne bi fi tax mu am wax naa ko dellu Touba laa ñëw ci sëriñ bi fekk fa Algéchir sëriñ bi ni ma demal woo àtt lii moom ko ci gémmiñam lii Algéchir la télévision arabe yi la waaye bala ñoo def dara nañu woo àtt ma woo ko mu ñëw taxaw waa ji bëgg a filmé kees bi xaalis bi leen àtt na ko déedéet filmé sëriñ dox digg ma xaalis bi mu paree sëriñ bi ñaareel ko ba mu génn garab bi télévision bi toog ne nañ ma wool aar ñu woo ko mu ñëw sëñ bi toog ci euh, yor yor ba ñu loolu tisbaar ñuy jàgg ci kees beneen bi sëriñ Touba njëmbatam jërul def ndox aatu njëmbatal Cheikh Abdoulaat na njëmbatal Cheikh Abdoulaat jërul def ndox dana jebbi waaye Cheikh Abdoulaat nekkati moo xam lépp xamoon na ni ngoon na la ko tool yi mujj aatu ak sëriñ Muntaxa ñooy mujj mu du xaab moromu atu bi ñu koy denc sëngal waaye daal na mu yëpp nag benn fas te ñaanal sëriñ Muntaxa lii mu sëmb sëriñ Bamba yàlla na ko yeggale